moo ngi ñëw Siteu moo ngi ñëw Siteu moo ngi ñëw ñu dem ak presse bi yëpp ñu leen di liggéey bu baax a baax Lamine Fall tey ñu ngi ñëw fekk ci Siteu Siteu tey gis nga ni gën mel gis nga say fan si tey ni nu def fii tey lii mës na am tey ci ëppul presse amee ba léegi tey sëriñ Mbacke alxuraan Mbacke balaa isa maa ngi lay siyaar di lay bëggee di lay jëf sa waajuwaay di wax ne ñun ñoom sa ginnaaw wax ñu ñu jëli ko rek ñu jëli ko bi may waxaat mooy damay nuyu sama mbokku séeréer di lay boole séeréer maanaam lay wax séeréer mi si nam xooyam na ko mbaaxale ke ka xatuna a ñoojoor jongaar amunde caalaan jinda bo mi andoona yee xane ta ref o mbind i mi xooya den i ngara sikkaam no combat fene ke séeréer a ref i a jaranaam o ñufa le mi i kon nu mbaagino ɓaana ten rek fada fi jege naa i jege tarkindaay jàmm gën fii sama xol fii mooy sama xol open press xam naa ne mënul yegg xam naa ne mënul xaj fii man fii mooy sama baal fii mooy sama xol fii mooy sama jamaa parce alxuraan fii jàmm leen ku la bëgg ma xam à semaine du combat combat bi préparé nga ko presque mois à une semaine du combat si instant bi lan lay yëg. li may yëg lenn dong la taw am jaamu ju bari. samay supporters di leen wax ne damay dalal seen xel di leen wax ne lamb bi dama koy jooy benn jooy. nga ne lamb ji da nga koy jooy benn jooy. benn jooy laa koy jooy. lan mooy loolu. xamoo ne loolu. wax ma ko da ngay xool ku dégg kàlla wala koo xam ne dégg na te ku déggoon xool wala ko dégg na ko amul tàmm la ko xam. wax ma ko rek fu ko. waxal leneen. mbooloo mi nekk si ginnaaw. Siteu mbooloo mi xale yi ndaw yi bàyyi seen fukki dërëm seen i lépp di ko dajale ndax yow mbooloo mi nekk sa ginnaaw. mbooloo mi mooy tax ma ñoom ñoo ma gën a sa mbaxan yi barke maam Sarafa sama mbaxan bi kese bu sama mbaxan kese kon ma dem États-Unis toog foofu dégg ñii ñii seen loxo jotul seen ginnaaw. ñii ñoo nekk ndaw yi nga xamante ne ñoo ëpp xel ñii ñooy ndaw yi nga xamante ne ñoo dàq jàng ñii ñooy ndaw yi nga xamante ne dañuy jëm di liggéey ñu leen di fay mille francs ñu xëy tournage bi di liggéey ñu ngi fii nga xamante ne mooy jàmm ah, nga xamante ne nii tey fi woote Siteu moo fi woote nga xamante ne nii tey la bisu open press mu woo presse bi ni damaa bëgg a ñëw nag wan li nga xamante ne mooy sama état wan li nga xamante ne mooy sama forme sama supporter na seen xel dal foofu la Siteu woote tey defe naa ni ñu ngi fii ci jàmm gën noo gisee. waaw xanaa ñëw jàpp daan Papa Sow jàpp daan ko rek. jàpp daan nga gis. kese rek. mais ba nga gisee Siteu noo ko gisee. non car macha allah état moom danañu quoi. Ah. nice ñun ni lañ ko bëggee nii baax na. nii ngeen ko bëggee baax na. dom de nan nga gisee Siteu. sam champion mag bi. tarkindaaw mag bi. jàpp daan rek. loolu nga gis. pare ñun. ndeysaan nee na pare na lépp pour ñoom. ndeysaan nan nga gisee yelmin bi. waaw mooy loolu gannaaw bi waaw yàlla mi daan na ba noppi. ngelima barke Serigne Saloum Mbaye xam nga lu des. Mm. Mm. kang mu wàcc mais boobee sama noonu la man nag la bañ a gis. mais mais mais Papa Sow ngeen am de. kooku ndaama la ñun ndaama yemuñu. Ah. barke Serigne Saloum Mbaye ndaama musul yëpp njool. Ah. si te jàmbaar la du ay waxi kese de. mais jiile jiile bu ñëwul lamb nan ngeen ko nar a dundee. gars yi ñu ngi fi gars yi seere. Ah. am na yeneen ak yeneen ñu des. waaw jàmm kon dafa bëri ay phénomène du si te ak ñeneen ak ñeneen. ak ñeneen ak ñeneen déggoo ma ne car car rotete bu jabi jar kit kit car car rotete car jar jar jar jar jar jar jar jar jar. ndeysaan mi ngi noonu jàmm gën ngeen di amee lu ne mbokk yi mi ngi noonu ba léegi ndeysaan ñu ngi fii boo xoolee Siteu mu ngay box ndeysaan xoolal ma tey nag beneen Siteu la ñu gisaat beneen Siteu boo xamante ne nii ndeysaan mi ngi waaj. ndeysaan waa jàmm gën ñëpp a ngi ci ginnaaw Siteu ndeysaan di waaj a ay mbokkam Siteu Siteu nan nga ko gisee tey ah waaw essence sant yàlla rek essence sant yàlla wér ah suñu xel dala wax dëgg yàlla suñu xel ban Siteu gis tey ah, wax dëgg yàlla bu ma leen gisoo ak bu tey moom non wute na trop wax fa dëgg yàlla Siteu nga gis ah beneen Siteu boo daan Papa Sow jël roi des arènes loolu la ñuy ñaan yàlla ci barki Touba barki borom Touba roi des arènes rek. roi des arènes bu ñu ragal loolu. ndeysaan mi ngi noonu ba léegi. nan nga ko gisee. waaw ni ma ko gisee moom mooy loolu Siteu bu waaw Siteu boo xam ne jom ak fulla rek. barki maam Serap Fall borom tëg-tëg bi. Papa Sow nañ day xeex ak yéen. soo Papa Sow day xaar day xaar ba yegg ak Thiafa Ndiaye. Ah. barki maam Serap Fall. ndeysaan mi ngi noonu ba léegi. ndeysaan waaye nag maa ngi gis ku la fay dë ndeysaan yàgg nañ koo gis ci ginnaaw Siteu ay mbokki Siteu ñëpp a ñëw gars nag dañuy faral di wax lii mayu yàlla la ndax lii Siteu dajale tey néew na ay mbër yi nga xamante ni nii dañu koy dajale waaye nag nañu xam ne open press press bi moo tax ñuy ñaan press bi nanu leen bàyyi xel bu baax a baax leen seen liggéey waaye nag yéen koy am fii ci Cat Appuy TV ndeysaan maa ngi ceeg Bamba waaye déggal loolu. ndeysaan. mer mer mais li dafa neex. bilaay walaay. Ah. dafa neex trop sax. mais boo déggee li sa yë lan lay daw daw xanaa. Ah. barki yàlla. mais tey yaa ngi gis Siteu. bilaay macha allah gay ah. macha allah.